mbokki internet yu Afrika Global Express TV dal len ak jam ñu dik ak yeen ci li gëna fess ci xibaar yi ñeel procès bi doon dox ci digënté staru brésilien bi nga nak mom mo di ndey mar ndey mar mi nga xamanteni nak jamono ji bu nga ci Paris Saint-Germain japp leen ni nag daal dina ñuy tijjiwaate nege ni demb li nga xamanteni nak mom mo di procès bi procès bobé nak lañu koy topé bokku na ci walum guerre di walum corruption ci waxtu bobé nak japp leen ni kii di mar daal dina assurer nege ni demb rek di xamné nak daal dina mom lepp lo xamanteni signé nañu ko rek boy bu di papa mom moko ko di signé ginnaw procès ba doon am ci diwanu ko Barcelone ginnaw bi lolé nak jappalé e né wax jojé ñun ko ko topé nak ci transfert ba nga xamanteni nak amal nako ci atum 2013 feulé ci Santos ci diwanu ko Barça Neymar di xam nek papa moyak di ne papam moo di occupé wu manam mom mo doon dox ak lijjanti lepp lu jëm ci walum négociation ñeel ay contrat wa moy xam nak di responsable bo xamante ne nag daal dina koy laaj wala responsabilité boo xamante ne nag daal dina ciy dugg du kenn ku dul way juróom ne nag moom moo doon signé lépp lu jëm ci wàllum transfert am démb nag ca procès boobee rek jàpp leen ni nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di partie civile bi ñu ngay laaj ci ñu daal di koy tëj ci ñaari atu kaso suñu paree daal di koy amande ci lu tolloog fukki million d'euros yoo xamante ne nag daf koy daal di fay te waxtu boobee nag jàpp leen ni procès boobee dañu kaa daal di dàqandi ba ay jëmmi jamono bu ko defee rek ñu daal di mën a àggali boobule atte waaye nag jàpp leen ni jamono ji rek staru Paris Saint-Germain boobee nga xamante ne nag moom moo di Neymar brésilien ba jamono ji nag lu ñu koy toppee bokk na ci wàllum ger ñuy xam ne nag daal ne wàllum corruption la koy daal di toppee ñeel transfert ba nga xamante ne nag ci atum 2013 la ñu ko daal di amaloon mbokk yi woy leen di abonné ci suñu chaîne YouTube Africa Global Express TV ngir am ay xibaar yu mucc ayib